masque xam ne ñan gel ñoo baax xam ne ñan gant ñoo baax ñu digal ñu ñu ut ci lu doy ndax suñu aaree suñuy médecin suñuy infirmier ak yi seen taxawaay pour aar ñu dana gën a mën a sotti loolu vraiment liggéey la boo xam ne c'est très très important ndax yeneen réew yi feebar bi jaar dañu ëpp ñu doole fukk ëpp ñu tamit ñaan tamit citoyen yëpp ñu ngi leen digal ñu def ko école yi tëj nañ ko ndaje yi nañ ko bàyyi en tout cas ñun au niveau de l'association des maires du Sénégal ñu ngi doon waajal benn tournée waaye bàyyi nañ ko ndax fu nekk nii ci xare la ñu nekk ci guerre lañu nekk période guerre nag da nga xam ne ci période guerre nga nekk bàyyi caaxaan bi nuyoo bi dañ ko arrêté euh, yenn jege yooyu sax dañ ko war a arrêté ndax yooyu yëpp moom mooy vraiment feebar bi wala daal loolu daal laa leen wax euh, di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla nag mbir mi na fi yem ci situation boo xamante ni réew mi yëpp xam nañ ko d'abord ngir gën leen a ñaax ndax ku nekk xam na lu xew waaye jàpp naa ne ku nekk tamit dégg na li nga xam ne moom la autorité nationale yi décidé muy benn amul benn réunion publique maanaam ay ndaje yoo xamante ne war nañ ko amalat ndax feebar bi li muy demee wone nañ ni yenn ndaje yooyu da koy day yokk euh, nu muy lawee Euh, ñaareel bi mooy ku nekk ci ñun am na lu nga xam ne war nga ko def ci wàllu hygiène moo di joxe loxo moom nañ ko bàyyi politicien rek liñ ko xamee mooy di joxe loxo tout le temps waaye période bii ñu toll politique xewatu dara xewatu lu dul xeex feebar benn politique rek moo fi am mooy xeex kon nañu bàyyi joxe loxo ñaareel bi mooy suñuy loxo nañ koy raxas ci bëccëg bi saa yu ñu amee occasion ñu raxas ko ak saabu saabu yi nga xamante ni moom la médecin yi ak professionnel de santé bi ñu indiqué li ma bëgg a wax nag appel bi li ci ëpp solo mooy nañu fexe ñii nga xam ne ñooy suñuy feejkat te ñoom kat ñoom ñoo ñuy aar nañ leen aar ñoom jëkk nañ leen di aaree mooy nañu fexe. hôpitaux yi nga xam ne dañ leen a tànn ñu war a jàkkaarloo Covid 19 bi waaye tamit dispensaires yi postes de santé yi képp ka fay liggéey nañ la aar niñ lay aaree am na nañu ci xarit waaye am na yoo nga xam ne ku nekk war nga ci mën a jàpp rawatina ñun maire yi mooy masque bu mu fa manqué mooy gel bi ñuy pompé euh, loxo yi di ko nettoyé bu mu fa manqué mooy gants yi bu mu fa manqué li ci des xëy na ku ci nekk boo dégloo sa comité. danañ wax lal leneen nga ci mën a yokk waaye wax dëgg yàlla euh, ku nekk ci ñun sa budget bu ko amul sax war nga mën a ut pexe sa wàllu bopp nga ut ay masque euh, ut gel ut ay gants waaye nag waxuñu nga dem ci mbedd bi jënd yooyu ñëw.